du du sax du sax lu ñuy kafe du sax lu ñuy café euh, Mimi nag dafa def erreur erreur bi mu def mooy dañ ko dugal ci tooxi doona joo xamante ni di début à ca lay dund loolu la doon doxal mais démb erreur du gën a ngande bismillahi rahmaani rahim nga yor posture opposant ñoom parti au pouvoir lañ parti au pouvoir day xaar ba opposition bi taxaw ne waaw yuuxu mais démb ñun li ñu wane la war a wane déglu nañ ñi ñëpp dégloo li ñëpp déglu ñëpp di bind di teg ca loola la ñu mën a basé lañ ci am ñun pour def mooy lañ daan def rek comme que ñëpp déglu nañ ko xam nañ ni li moo xew mais bàcc bàccal yi ñaar la ba ñett bi ci njëkk mooy dakaar beneen bi ci tegu mooy Casamance mais foofa jaadu na pour ñu jubiler wala jaaduwul pour ñu jubiler Barthélemy bu téyee waa Dakar Bamba Fall téyee ki ñuy tuddee lu xees li nu tuddee ti non li xees li dëkk plateau meeru plateau bi euh, Aline Ndoye waxuma ay Cheikh Ba non non non wax ñooñ sax jële naal téye Juliette Zinga ñeneen ak ñeneen ñoo ñu doon yuuxu surtout Bamba ñu téye won leen biddiwu bëccëg mais kooku dana jaadu nga gagné si 19 communes yëpp sa commune bi nga nekk muy Mermoz Sacré-Cœur nga wane fa loo xamante ni tey ñoom ñoom ñi yeewu tey xawma nu ñu sëlmoo ak nu ñu ndekkee mais kooku jaadu na nga génn ne man gagné naa sama 19 communes. xeetu kan xeetu. xeetu la xeetu titre la ci côté kan. Euh, euh, mais kooku amul titre am na ñu ngi avoué sax ñu ngi baw nit lu ma bëggute tudd ci émission bi. parce que ñoom dañu bismillahi rahmaani rahim ñu génn ñu tendre leen micro démb ñu ne waaw dañu def dañu dañu def dañu transférer ay électeurs ñun ñun waxuñu leen ñoom ñu ñuy taxaw naan dañu transférer mais kon xel mu xel mu xel mu wàcc ah dab na leen. d'accord mais imam euh, ñoom joxe bëri na ay communes yoo xam ne. Mhm. parce que mhm. ci biir Mhm. commune yi ñu gagné ba euh, euh, xam nga loolu moom man euh, dama ni kii lëlu di jooy moo xam la muy jooy man mënuma ci wekk mënuma ci daaj loolu laa la junj léegi mais ñun li ñu mën a jàpp mooy li xel mën a jàpp dañ doon jongante ñaari àtte la ñu am public bi ak beneen àtte bi nga xamante ni ñoom teg nañ ñi ñu dénk seen loxo ci élection yi public bi génn nañu wane nañ ni ñoom yeewi askan wi moo leen arrangé tele yeeg rajo yi wane nañ ko parce que résultat yaa ngi toog di déglu maa ngi toog di déglu résultat yooyu du sos du wax lu dul dëgg te diaspora bi booy seet sur les quinze députés su ma juumul ñu am ci euh, neuf députés mais kan moo am majorité foofu te gis nga liy tombe ci diaspora bi mooy law ba biir Sénégal mais nangu nag dafay woyefal jël rek mais boo ko nanguwul tamit lu fitne bu fi yeew yaa ko fi indi. d'accord d'accord alors bu ñu bu ñu xoolee ba tey imam ci euh, euh, déroulement euh, élection yi et tout ça gis nañu benn candidat boo xam pseudo candidat parce que bëggoon na nekk candidat mais finalement dañ ko mujj écarté jot nañ ko junj sànq. muy Ousmane Sonko. mais boo xoolee diiru campagne bi yëpp. Mm-hmm. on a eu l'impression que Ousmane Sonko mooy. tête de sax bon évidemment mhm. mais tête boo xam ne bokk na finalement mhm. mooy engagement bi nga doon wax mhm. ba dafa dem sax ba ravir la vedette euh, aux autres candidats boobu itam engagement boobu yaakaaroon ne peut euh, moo jot a peser ci vote euh, yenn xam nga engagement boobu feeñugul sax dañ koy jëfal moom président Ousmane Sonko gis nga li mu doon campagne certes législative yi ci la bokk de Abdou Khader duñ ko dindi mais la tax président Ousmane Sonko jóg loolu ñëwagul yàlla bu rëddee nga effacé ko mu rëddaat nga effacé ko balaa muy rëddaat da lay ba pare soog a xam nga du ma ni avertissement parce que avertissement bi weesul woon ci municipalité yi mais bii ñu jëm mooy takkal say bagage foofu la Ousmane président Ousmane Sonko doon jëm te gàcce ngaalaama dem na fa dugg fa ba pare. yóbbaaleel laawaaleel li ñoo tuddee législature bi yëpp tous les yi nga xamante ni ñoo bokkoon ci wàllu ak yeewi kooku moom kuy goree tey wax dëgg moom nga war a njëkk a delloo njukkal moom nga war a njëkk a tàccu ba pare nag teg ci ñi nga xamante ni ñoo doon topp ci gannaawam maanaam public bi su ma nee président Ousmane Sonko nag tudd naa yeewi askan wi yëpp parce que yaa ma laaj président Ousmane Sonko mais tey boo xoolee da ngay xam ni da ngay xam ni nga nangu ko u nga ñàkk ko nangu nangu ko mooy li lay noppal public bi Sénégal li ci ëpp ñu ngi ci gannaaw président son ko ndax eh, waxuma ko parce que dama ko sopp wala boog dama koy défendre wala leneen man man personnellement su ñuy wax élément élément Barthélemy Toye jaas la mais lu ni fàng kenn du ko jeex mais Abdou Khader da ngay dem benn meeting nga dugg Louga nga dugg Ndar mais ñeneen ñi ñu yëkkati micro jox leen pour ñu wax mais ku ci ku ci ku ci ku ci xër sax ba bëgg a dépasser cinq minutes public bi ñoo la ko dul may public bi benn jëmm la ñuy déglu mooy président Ousmane Sonko li ma la wax am na wala amul bu ñu bu fekkee ni dañ ma weddi ci li ma wax nañu delluwaat ci vidéo yi loolu nag dañ ko ci sant di ko ci gërëm di ko ci ñaanal yàlla beneen bi ci des muy alerte bu foor ci ñi nga xamante ni ñoom la yàlla jàkkaarlool ne leen tëj leen seen gémmiñ ci président Ousmane Sonko moo xam ngay kilifa diine moo xam ngay kilifa aada moo xam ngay pa nga yor parti politique wala nga yor coalition wala lu mu mënti doon mooy ni ak lépp li nga xamante ni ñu ngi ko doon diaboliser ak di ko sosal président Ousmane Sonko tey Sénégal wan nañ leen ni même su fekkoon ni loolu am na mais ñun moom doy nañu bu fekkoon ni loolu am na Abdou Khadar moom doy na leen mais mais mais daf daf dafa naturel dafa naturel du loo xamante ni xaaj na lee bon euh, lu mu sangoo la walla lu mu diwoo discours yi muy tenir la du cangaay du diwoo dëggu gi mu dëggu la li nekk ci moom Abdou Khadar fàttalikul ne fàttalikul ne Euh, moom moom ci boppam dafa am lu mu waxoon li mu waxoon képp koo xamante ni fa ma doon liggéeyee muy domaine am nga fi lu toll ne tarfatal ay ni lu toll ne tarfatal ay ni loo ma mën a téye kole euh, ma ko wala nga mën ma ko dugale kaso mais ñëwal ubbil naa la bunt mais du mos a am du mos a am alal ju ma mos a luubal ku ma mos a jënd ku ma mos a corrompre ñëwal nga taxaw man Ousmane Sonko nga ni corrompre naa la fu ma mos a luubalee alal génneel alal jooju suuf su ma dëkkee te moomu ma ko génne ko waaye pendant ñaata at amoo looy def di wëlbatiku naan woy dafa nangam ak dafa dugg fii ak dafa génn fii ah dafa da dafa dafa dafa tëdd ak jigéen joo xamante ni lewu ko wala boo jigéen joo xamante ni daf ko forcé mais nañu wax ci bi xew léegi sahidallah nañu wax ci bi xew léegi borom culotte bu xonq bi nañ ko wax. te yoon na ci def na mu na ko accélérer comme ni mu accélérer woon Ousmane Sonko parce que autorité la te jege na Macky sàll réew mi looloo fi dul amati te dafiy jeex gàcce ngaalaama nag président Ousmane Sonko ba nga xamante ni lu tax ma ni gàcce ngaalaama mu mënoon a toog këram pendant vingtaine de jours mu takk ay dàllam xamul bànneexu lal xamul bànneexu ndox mu sedd ca këram xamul bànneexu ceeb ba ko soxnaam di toggal xamul bànneexu eh, ak affinité njaboot ga muy xëy di leen yóbbu ñuy jàngi école ak indi tey yooyu yëpp mu teg ko fële takk ay valisam ànd ak ñim ko àndal ñu ñu ñu ñu tegal ko ci tabarakallaahu cortège bi boo ko doon xool dangay ngay yéemu ay médecins yu qualifié jox ko ambulance boo xamante ni bien équipé jërëjëf Serigne Mouhamadou Moustapha Sy al al la am yëkkati loolu teg ko ci seen loxo mu topp cortège bi nga xamante ni moom la Ousmane Sonko ak leaderu Yewwi Askan Wi jiite ku ci sëqër sax ñu jox la loo xamante ni dalay géey day génne sëqër soosu nga nekkaat en forme mais loolu ko yaakaar ni euh, ñii ma gis démb ca siège boo ko Yaakaar mën nañ yàq liggéey boobu liggéey boobu nga xamante ni askan wi ñoo leen ko dénk liggéey boobu nga xamante ni askan wi ñoo ko def tey tàllal ko Sénégal ne doxal leen bi ci gën a garaaw mooy nga génne liste titulaire indi suppléants yi suppléants yi nekk ay xale yu ndaw ñooñee yàlla ne leen yéenay duma liste titulaire u Benno Bokk Yaakaar ba pare yéenay dem assemblée jiite ko mais Abdou loolu ku mu doyul dara dootu la doy ci àdduna ñoom nañu nangu ne gàcce daf leen a war a rey gàcce gi mooy lan yow yaa ngi amee sa liste nationale ah ba pare di xeex beneen liste ba génn ca président Ousmane Sonko ñu ñëw nag wëlbati ko liste ba ngay xeeb muy remplaçant yi ci biir équipe bi ñoo ñëw la duma ràggi roggi yenu ba ca kaw teg ci suuf kon gàcce ngaalaama président Ousmane Sonko gàcce ngaalaama Barthélemy Toye Dias la ñu war a liggéey ak li ñu war a def yëpp def nañ ko wax nañ ko alhamdulilahi rabbil alamin li ci des nag mooy jarul di yuuxu jarul di di di di di di def conférence de presse yow am nga ñoo wóolu ñoom bu dee wàllu justice boo waxee ñu ne la bàyyi leen justice def liggéeyam bu dee ci élection yi boo waxee ñu ne la bàyyi leen ñi war a àtte élection yi def li ñu war a def bu ñu paree résultat yu ñu joxe mais lu ñuy profité di yuuxu. d'accord alors imam euh, campagne. Sonko. gàcce ngaalaama Barthélemy Diaz. président Ousmane Sonko